تقرع إلى الله وحده yanaalul raja TV ñu ngi am mbégte bu baax ak kontaan te teewlu bi ngeen ñi teewlu seen seen bu mag bi di Farokh TV tey ñu ngi fii ci kër Mbaye Fall jëmm ji ngeen dañoo kenn dootul leen ko présenté ndax xàmme ngeen ko ci seen seen bu mag bi di Al Farokh TV mu nekk saltige bu mag sëriñ Ibrahima Ndour moom la koy wooye diwaanu kër Mbaye Fall yëpp xam nañ kan mooy jëmm ji ci xam-xamam waaye ci dimbale jaami yàlla yi waaye ci waxleen loo xamante ni macha allahu rabbi boo ko xoolee da nga ciy teg sa bët mu jege ko fii ba njeñeen ci dëkku séeréer ci il defe naa ne kooku moom kenn dootu ko lam-laamee nga xamante ni fu mu dëkk balaa nga fay jàll faaw nga jaar ci ndox pour dem kii moo moo doon maamam ci xam-xam waaye moo nekk nit koo xamante ni macha allahu rabbi bu la ñaanalee da nga ciy teg sa bët sëriñ Ibrahima Ndour dëkk bi jaxasoo na lool ci wàllu sëriñ ci sëriñ si nga xamante ñu ngi génn ci internet bi xam naa sax ki lay seetaan waaw moom mu ngi wax sëriñ ci ba pare dalal sëriñ waaye neenaa la bu ñëpp tolloo woon kenn ku nekk gedd sa cër incha allahu rabbi danañ ci ñëw bu baax waxtaan ak moom tamit ci actualité dëkk bi donte coupe du monde bi jeexul waaye Sénégal toog na am na lu mu ci gis danañu ko wax incha allahu Adji Sarr ak Ousmane Sonko tey jii nga xamante ni ci la Ousmane Sonko war wuyu ji jàkkaarloog moom ak Adji Sarr danañ ci ñëw ak wàllu liggéeyam tamit incha allahu rabbi dañ ci ñëw sëñ ñu ngi lay nuyu bu baax am kon seet si wàll tey ci sa kër. alhamdulilah ginnaaw bi ñu sante yàlla. julli si yonte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi ñoo ngi ñaanal yàlla suñu xalifa général yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi yàlla may leen tawféex may leen wér may leen gudd fan. ci barke yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu tamit waa Farokh TV elage ñoo ngi lay nuyu bu baax di leen ndokkeel ak sa équipe sama jaam bi muy pël maa ngi koy ndokkeel bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Ibrahima maanaam li ñuy wax waaye géew bi pëccëxoo na maaraay yi nga xamante ni ñu ngi ci internet bi lëmbe ko lool ba kenn ku ci nekk newoon nga Sénégal day dool Angleterre 3-0 ñii di joxe ay score yoo xamante fekk lañ doon wax France daan naka dem naka nga gisee loolu seen mbokki sëriñ si nga xamante ñu ngi ci internet bi guddi ñu toll nii lëmbe ko lan lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw lu may wax ci loolu rek mooy bi maanaam tey boo gisee loolu. dafa am lu ko waral. te lu ko euh, waral. jaru ko mooy lan. Mm-hmm. mooy bëgg xaalis. Mm-hmm. moom moo ko waral. Mm-hmm. te sëriñ si nga xamante ne ñoom la ñuy wax sëriñ si ñoom ñi nga xamante ñoo gën a bëri wax ci internet bi wallaahi azim rabbul kaaba xamuñ dara xamuñ dara xam nga tey nga nekk sëriñ tey am loo xamante ne yàlla may na la ko boo toogee ci télé dangaa wax wa dangaa war a wax xam-xam ñuy invité woon keroog damay jaay si tur bi mooy Mara. Mm-hmm. ak keneen kii Karamba. Mm-hmm. kooku nga xam ne dafa wax ne am na jënd te amul dara. Mm-hmm. bu ñu toogee tey si keroog si télé bi ñu invité leen. est que wax nañ foofu xam-xam. ñaata waxtu lañ fa def. est que nit yi for nañ foofu benn xam-xam boo xamante ne nit dina ko mën a jëriñoo. Sénégalais yi. ñoom ñoo war a yeewu. ñoom ñoo war a xam. ñi mën ak ñi mënul. dëgg nit ñi dañuy far di wax ne. Mm-hmm. bërigo boo xamante dafa am ba fees. Mm-hmm. doo ko déggu si ak biir wi. dëgg bëri boobu amul dara rek. Mm-hmm. moom mooy moom moo lay rey ak biir wi kalang kalang kalang kalang kalang xamuñ dara. billaahi wallaahi tallaahi xamuñ dara. te su ma jàkkaaroon ak ñoom. ci plateau. dinaa leen woon la yéen ñii xamoo leen dara xamoo amoo leen xam-xam. parce que boo amee xam-xam. mun ngaa wax doomi aadama yi lu leen ji jëriñ. nga tegtal leen lu leen di jëriñ ëllëg. Mm. waaye toog si télé ñaata waxtu munoo wax. Mm. dara loo xamante ne jëriñ na jëriñ na doomu ak temps wu nu mu seeree. ak temps wu télé nu mu seeree. Mm. munoo wax dara loo xamante ne. nii mun nañ kaa jàppate te kii nii am la xam-xam. Hmm? di wax ne ay jinne xam nga wax naa la fii keroog ne. ñii nii dañuy fay si coupe du monde bi. Hmm. bu passé dañuy fay. ah ñii koy fay nañ sëriñ bi ndax li ñu waxoon yëpp daara lañ ci gisut. ndax ah. Karamba keroog wax na biisu na ko boo demee ba jaaxle ba ma wooyee mu dugalal li bi moom des sa dégg da nga ko woo doo ko jot. loolu yëpp xam nga lu tax. Hmm. jub. Hmm. di woote am nga xam-xam te amoo xam-xam. di woote mën nga lii te mënoo lii. gis nga luy xew ëllëg yàlla la ko ko xam mm-hmm. yàlla mun na kaa won jaam ji mm-hmm. ba jaam bi gis ko jaxra tàng mu mm-hmm. ëlbati ko moo tax luy xew ëllëg yàlla la ko ko xam moo tax zaaru max yi sëriñ si dañ cee war a génn zaari fubal yi sëriñ si nañ leen si génnee ba mu set wicc coupe du monde wala coupe d'Afrique bu amatee askan bi nañ taxaw bu sëriñ bu waxatee sëriñ bu waxat fii dara si max rek ñu ñu la sëriñ bu wax dara si max ñu attaqué la est-ce que ñun tam Sénégal jarut tamit ñu xoolaat suñu taxawaay ndax ñun suñu lépp ci maara lañ ko wér. est-ce que xam nga loolu ñu. xam nga lan moo a loolu. Hmm. parce que Sénégal moo moo kii moo jaxasoo. Hmm. Sénégal yéenante lu baax. Hmm. bëggantewuñu seen biir fonkantewuñu seen biir. te affaire sëriñ. dafa nekk loo xamante ne wallaahi azim wa rabbul kaaba dafa am. dafa am. waaye fu ne nii billaahi ñu mën léegi bëreetuñ ñoo gën gis nga saay-saay yi mm-hmm. ñi woote ay sëriñ nañ te mënuñu mm-hmm. ñoo fi ëpp jamono ngi mm-hmm. moo tax ñooñu ñoo yàq ñu bëri tey tey nit daf lay oosaneel sëñ bi man tey damaa dem tey ba décourage ci ñaan loolu ñu ñu koy wax du du xaaj du jeex waaw léegi nag am pagaañ la nit yi tey di wax ne dañoo dem ba découragé si ñaan loolu lan moo kooku lan moo tax mu découragé si si si ñaan parce que am na luy ñuul ci soow mi waa kañ nag. luy ñëw noonu si soow mooy lan. mooy nit ñi di lekk alalu nit ñi. te duñ leen fajal li nga xamante ne moom lañ bëgg. nit ñëw tey ne la damaa bëgg nga fajal ma nangam nga laaj ko cent mille. nga lekk cent mille yow te gisut te gisut. mu demaat ci keneen keneen waxaat ko noonu te gisu ko. Mm. bu yàggee mu toog jàpp ci yàlla. te bu bu boobaa dina wax ne ah ñii ñëpp a yem kenn xamuñ ci dara. dëgg te yàlla xam na ni nit ñi yemuñu gis nga ñun séeréer ino séeréer i njega njeg ka andoona yee ten ref aada in ke refna aada in ten ref ino i ñaam ke xalal no kiin i ndoyɗooxa to i yafkaan na dara sëñ bi moom da ko tekkal ci wolof moom ñun dafa am loo xamante ne mooy suñu aada mooy duñu lekkal alal niñ uhuh. loo xamante ne suñu naf su bakkan la uhuh. lu lewut mm-hmm. duñ ko lekk mm-hmm. liggéey lañ xam mm-hmm. jaamu yàlla lañ xam doylu lañ xam képp ko wax séeréer fii Sénégal dañuy wax ne séeréer de amul caaxaan moom séeréer da koy séeréer jege caaxaan kon caaxaan bi dafa bari si réew mi te lii nii askan bi walla ñi nga xamante ni ñoom ñooy fédération football bi dañ see war a jóg parce yàlla moo ko jaarale nii waaye. Mhm. dañoo war a noppi. Mhm. gis nga ma gis nga équipe nationale. Mhm. équipe nationalu sénégalais la. ñenn ñi ci politiciens yi dañ see war a génn. sëriñ si dañ see war a génn. équipe bi du affaire politique. du affaire sëriñ. du affaire politique du affaire sëriñ. bi équipe nationale la. te yow gis nga ne da nga ne du affaire de politique affaire sëriñ da nga gis ne yow politique da cee rax. politique am na ci. parce que tey am na ñoo xamante ne tey. bu ñu waxante suñu dëgg rek bëgguñu coupe bi ñëw Sénégal. te ñëw si opposant bi lañ nekk. bëgguñu coupe bi ñëw senegal déet waay sëriñ parce que jàpp nañ tey wallaahi azim wa rabbul kaaba parce que jàpp nañ tey coupe bi tey bu ñëwee Sénégal. Macky Sall la ñëwal. du foofu. maanaam nit nekk ci opposition di xeex équipe nationale bi pour ñu bañ pour ñu. coupe bi bañ am na. Ah. wallaahi am na te li ma lay wax. Hmm. dama da da daf maa leer. Hmm. kon loolu. an léegi léegi léegi léegi ana Sénégal. ana Sénégal bu ñu xamoon. si réewu teraanga. Hmm? réew boo xam ne réew bëggante la. Hmm? ñun dañoo war a nekk benn laa yuminu ahadukum xatta yuhibbu li axiihi maa tuhibbu li nafsi ku gën a gëm yàlla mooy koo xamante ne lu mu bëggal boppam rek dakaa bëgg mor mi jël eh, eh, jullitam yonente bi dafay wax ne hmm. al muminu lil muminu kal bunyaani sudduhu baaduhu baadan jullit ak moroomi jullitam dañoo war a mel ni comme tabax bi tabax bi tey birig bu nekk moo ngi wax ne du ma bàyyi sama morom parce que birig bu nekk tey tey benn birig tey bu woddee mm. tabax bi dina am lu manqué mm. boo moytanu tabax bi yëpp màbb mm. ñun noonu la war a jàppale si suñ biir ñu dimbalante suñu biir jàppalante suñu biir fonkante suñu biir bëggante suñu biir yénante lu lu baax suñu biir waaye Sénégal yéenante lu ñu baax bëggante dañuy naxante mun nañoo fen ku la dàkk fen nga ne kii ku la dàkk tappale nga ne kii sëriñ si ak politicien ñoo yàq Sénégal te te te kam maanaam te lu ma ci gën a kii maanaam ñoom duñu sanara maanaam dañuy ñëw rek ni sëriñ si ñëpp ñoo yem te fekk na wallaahi ay benn benn la ci biir est-ce que tey jotul yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci wàllu ñaan bi ngeen prendre seen responsabilité xool ñi mën ak ñu mënul ñu yàq ak ñuy defar. loolu nag lañ bëgg a dindi si Sénégal. est-ce que dina yomb tamit. du yomb dara yomb fi. dara yomb fi. dara moo fi yombut. waaye nag. dinañ def loolu tout. pour ñun saa yu ñu génnee rek. ñu feeñal xam-xam ci jaamu yàlla yi. ba ku jëflante ak yéen. ba ku jëflante ñun xolam sedd. pour man loolu lañ ko war a mën a xeexee. yaa ngi dégg bu baax. dama laa toog fii keroog dama laa wax ne. suñu mag yu njëkk yi. amul ku leen dàkkoon. amul ku leen ëppoon xam-xam ci àdduna bi. te lu ñu doon fayeeku lu ma dix mille francs mm-hmm. doomi Adama ñëw na ci yow am na soxla xamoo lu mu fanaanoo mm-hmm. nga laaj ko ay ay deux cent mille. Mm-hmm. kooku du sëriñ. tey hélas. fekkoo ci man oto. su ma neexoon tey ma gaari fi ay oto. dëgg la waaye oto du ko amee. ci naxante. oto du ma ko amee ci tappale alal du ko amee ci tappale ak si fen suñu mag yu njëkk yi dañ doon am xam-xam ba doyal boo demee seen kër yi seen biir néeg yi sax duñ ko raax duñ ko dër lal bu baax duñ ko am ay yére yu rafet duñ ko am te fekk dañoo fees del te fekk na dañoo fees dell bay tuuru affaire bi loolu la dañ bàyyi caaxaan gi mm-hmm. sëriñ si ay jinne ay yére dañuy fen mm-hmm. kenn amu fi jinne mm-hmm. sëriñ su ma gis nii billaahi wallaahi tallaahi kenn amu fi jinne te ku ma bokk ak moom palaato dinaa leen wax ne yéen ñi jinne nan lay mel kenn amu si jinne dañ sellal sëriñ Ibrahima Ndiaye maanaam li nga ci wax macha allahu rabbi saltige bu mag bi ñëpp dégg nañ ko mais dama bëgg ñuy porox ndoll rek ci assemblée nationale bu Sénégal nga gis yaakaar naa yaa ngi koy suivre nga gis actuellement nu muy doxee xottiwante orma yi ba muy law ba ci kilifa diine yi ku ci mel ni sëriñ Moustapha ah njiitul mutasidin wala mutasidaat ah nga gis ku taxaw di xotti ay ormaam ci ensemble bi est-ce que ñun loolu la ñuy doyee député waaw wala déet. waaw damay wax wax ju jëkk ñun suñu kilifa yi suñu maam yi ñoo defar Sénégal ñoo xeexal Sénégal ba Sénégal yegg fii. ku ci met ni ñoom Alaaji Malick ñoom ñoo xeexal Sénégal. seen barke boobu moom mooy law ba seen sët yi sëñ Moustapha Sy Al Maxtuub yàlla ko yàlla defal jàmm am na xam-xam lool te képp ku mu yar nga nekk taalibe sëñ Moustapha si laa la wax doo tux doo naan doo fen doo sàcc képp ku nekk taalibe sëñ Moustapha si dëgg doo tux doo naan doo sàcc doo tappale kon kooku yar bu baax moom la def ci taalibe boobu waaye tamit damay wax tamit waa assemblée nationale. assemblée nekkut. pour défendre ay sëriñ. dëgg la. nekkut. pour nekk foofu di xeex. assemblée nekkoo leen foofu. ngir ngeen xeexal ay jigéen. ku nekk. na am cër sa morom. askan bi dañ leen a fal. pour ngeen nekkal leen foofu. waaye askan bi falu leen. pour ngeen nekk foofu di xeex ak xuloo mm-hmm. nañ defaraat seen toogaay mm-hmm. rafetut mm-hmm. Sénégal image yooyu wër na fu nekk Sénégal réewu teraanga image yu ñaaw foofu wër ku nekk góor bu dóor jigéen ku ko wekk wekk boobu wekk bu metti la wekk boobu metti la jigéen kan du ko toroxal ak lépp lu mu mënta def lu mu wax xaa ñaawlu nañ ko ci sëñ Moustapha ñaawlu nañ ko lool. Mm-hmm. waaye tamit ku góor kooku lu mu def. Mm-hmm. ñaaw na ba ci kanamu yàlla. Mm-hmm. parce que jigéen kenn du ko dóor. jigéen kenn waru kaa wekk waxatuma wekk bu mu ko wekk noonu. tiim jigéen di koy wekk gig. asamba doy kàddu yooyu dénk Amy Ndiaye yan kàddu nga koy dénk pour pour maanaam ñu ngi koy ñaanal mu wér sax dégg naa mu ci lalu hôpital jógagul ñu ngi ko mu wér yan kàddu nga koy dénk pour bu jógee koo ci lii pour delluwaat ci assemblée. yàlla na ko yàlla may taw feex waaye maa ngi koy wax ne bu ñëwaatee na defaraat toogaayam bu baax toogaayam na ko defaraat bu baax gis ngeen euh, ensemble boo fa nekkee dafa am nooy toogee foofu euh, dafa am nooy toogee foofu askan bi mm-hmm. yaa ngi dégg bu baax mm-hmm. dafa am nooy toogee foofu askan bi askan bi ñoo la fa yóbbu. Mm-hmm. askan bi lu ñu bëgg defal leen na ko. Mm-hmm. lu tax ngay fayeku mm-hmm. askan bee tax. dëgg la lu tax ñu jox la oto. askan bee tax. te du Macky Sall askan bi ñoo ko fal goxam ñoo ko fal. kon nag buñ la falee. dafa am nooy toogee foofu. yóbbu ñu la foofu ngir ay gaaruwaale mm-hmm. yóbbu ñu la foofu ngir ay xeex mm-hmm. yóbbu ñu la foofu ngir lépp loo xamante lu bon la dañ laa yóbbu foofu pour lu baax mm-hmm. kon nag defal lu baax bu ñëwaatee na xam fu mu yem na xam nu muy waxee na xam nu muy jëflantee salaamaaleykum euh, sëñ bi xam naa ne balaa ñuy jeexal dama bëgg ñu am benn question bu ma bëgg ñu waxtaanee muy wàllu cat nga dugal ko ci rek après ñu jaaree fa tëjewaale cat sëriñ bi lëmbe na réew mi sonnal nit ñi loo yaakaar mu tas loo yor mu dem cat est ce que mën na adam doomu tak ba jeex tak ci yaram cat yonente Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam dafa doon wax ne sama xet ñet ñi ci genn aduna ñaan ñi làmmeñ mo leen hmm wa dafa doon muslu ci làmmeñ yalla ñu yalla musal ci làmmeñ amin ya rabbi Mom yonente Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam parce que dafa xamoon lu nekk ci làmmeñ olof Njaay dafa fa di wax ne làmmeñ jigut garab sakatu ak doomi adama deug la ñu bari ñoo hôpital mhm. ñu bëri ñoo ngi hôpital. Mm-hmm. am fa fukki at ak lu teg. Mm-hmm. làmmiñ la moo leen fa teg. làmmiñ kese. làmmiñ mooy loo xamante ne posoñ la ci doomi aadama. Mm-hmm. mooy nit ki moo tax nit ki. saa su yeewoo rek war naa muslu ci làmmiñ. dëgg la. war naa musul ci làmmiñ. cat nag. mun naa dëñ ci nit ki. nga dëñ léegi mu dëñ nga sa mu dëñ léegi nga génn. nit xool la rek cat dugg la moo tax nit ki foo foo munti nekk rek da ngaa war a aar sa jëmm aar sa bopp mm-hmm. yaa ngi dégg bu baax mm-hmm. pour lépp loo xamante ne lu bon la mm-hmm. bu bu mu ñëw sa kaw. Mhm. nit da ngay génn sa nga fa xastalu daanu. Mhm. Mhm. damm wala sa kii bi am problème loolu yëpp ay cat la. loolu yëpp cat mën na ko def loolu yëpp cat la. Hmm? loolu yëpp cat la. bunt boo fëgg du tuddee lépp loo yaakaar doo si jot. loolu yëpp cat da koy indi. Hmm? kon askan bi dañoo war a nañ defaraat seen bopp. ci ci ci wàllum loolu. tey cat tey. am leen jox loo xamante képp ku ko def. yaa ngi dégg bu baax. Mm-hmm. di nga di nga di nga muslu ci di nga muslu yàlla dina la defal tawfee. Mm-hmm. ci loolu. ci cat ci cat. Mm-hmm. loolu secret booy maye la. waaw. jàkkaarloo caméra bi parce que eh. àdduna yëpp dañ lay bàyyi xel di la seetaan. te yow yaay saltige bi mag fii ci kër Mbay Fall macha allahu rabbi képp koo mos a ñaanal teg ñi bëtam. te jaami yàlla yi sa kàddu rek la ñuy déglu pour jëriñu. Mm. jàkkaarloo caméra bi li nga leen di may nga may leen ko ci wàllum cat. nga walam cat boo jëlee tey bi maanaam tey pëftën boo jëlee tey pëftën xob bi wala doom bi xob bi nga am saabu boo xamante ne sa saabu néew la saabu niw néew ah sëñ bi bu talaata ah. ak juróom-ñaari puso nga xooj ko nga sangoo ko lépp lu nekkoon sa kaw dina dëñ mm-hmm. te képp ku jóg pour dina dee tey tey boo fekkoon tey xaj boo xamante ne oto moo ko fiir mm-hmm. xaj boo xamante ne oto moo ko fiir mm-hmm. nga jël yaxu xaj boobu takk ko say njaboot ku jóg pour liggéeyal la képp ku jóg pour yàq sa njaboot kooku oto dina ko rey billaahi wallaahi tallaahi sëñ bi ah, yéeme na de boo jëlee juróom-ñaari guro ak juróom-ñaari puso. nga jël guro bu nekk. ak puso bu nekk. nga ne lépp loo xamante ne nekk na sama kaw yàlla ko yàlla rocc. nga jam ko ci puso bi. nga jam ko ci guro bi. waxaat noonu waxaat noonu ba juróom-ñaar yee jeex. nga xooj ko. fajateen nga sangu ko lépp lu nekk ci kaw mu deñ sëriñ bi lan ngay tàggatoo loo bëggoon a leeral nga jaaree fa tàggatoo sëñ bi li moom doy na sëkk ak barke. lu may tàggatoo mooy. Uhm. nañ jox mag yi cër. mag yi nañ yërëm ndaw yi. dëgg la parce que Sénégal lañ nekk. senegal nag. jàmm rek lañ fi bëgg ak salaam. nit koo xamante ni dangaa ñëw danga bëgg dangaa bëgg a ñëw yàq senegal yow yaa yàqu waaye senegal du yàqu. dëgg la parce que Sénégal suñu mag yu baax yi defal nañ ko ba noppi. defal nañ ko démb tey doog a ñëw. kenn mënu kaa yàq. kenn moo ko mën a mënta yàq. kon dañ leen defaraat suñu toogaay. Mm-hmm. dimbalante. Mm-hmm. fonkante. Mm-hmm. jàppante. yërëmante. bu ñu defee loolu rek. dina baax. président nag. wallaay président maa ngi génn rek di lay wax il ba. président. maa ngi génn rek di ñun si Sénégal lañ bokk. waxoon naa fi keroog. lu xewoon Fambine. ba am ay kii yu fa yónnee. loolu war naa tax ba mu gën a gëstu île ba île mm-hmm. ba mm-hmm. ay nappkat lañ mm-hmm. te courant bu doy amu fa te jën jën frigidaire la tey boo demee tey suñu dëkk tey nga yor amul courant te loolu président rek moo ci mën a dox président ñoo ngi lay wax ne que île bi bëgg nañ la lool ñu lay fal il bi ci lañ bokk ci ba yëpp ñoo ko bëgg warutoon a xaar sax ngeen di ko woo déedéet warul sax moom moo waroon a sol ay daalam dem ci île ba. <laughs> comme bu muy ah. laaj réew mi ni mu ko defee woon. waaw comme bu muy laaj réew bi comme ni ñu ko defee woon. <laughs> ñu defee ko noonu. <laughs> tey école bu baax. amu fa. boo demee tey si école ya. da ngay yéemu ci yàlla. bu baax. amu fa. wallahi azim wa rabbul kaaba boo leen fa ñëwee. di ngeen gis loo xam mosoo leen kaay noo gis. parce que xam nga guy buy bañ olof. xam nga ko. guy guy boo xam ne dafay bañ olof. day bañ waaw ah, boo ñëwee dëkk ba ni nga ko gis. guy goo xam ne wolof lay bañ. Eh, kon sëñ bi ñu ah. jarul ñuy ñëw di. non yow boo demee doo làkk olof man maay bëgg di làkk séeréer nga topp ma. ah waaw. kon nu may waxtaanee ak yow. waaw ba ma demee ba su ma demee kër ga. ma firi la ko si olof. guy guy boo xam dafay bañ lu xonk mos nga kaa gis. déedéet pour lu xonk kese. Ah. moo ngi dëkk ba. waaw. guy boo xamante ne tey. Mhm. boo lekkee xoox yi. Mhm. boo boo àjjee buy bi. Mhm. xoox yi foofu nga koy bàyyi ak xott yi. doo ko yóbbu. doo ko yóbbu moo ngi dëkk ba. il ba de moom faaw ñu ñëw fa moom. muy baakamaak. ak ngongom. ak bandeel. te am na yeneen yoo xamante ne. mbiru baatin la foofu. waaw ah lii maanaam luñ ci teg rek yàq émission bi nee naa leen. su fekkee dangaa bëgg a gis sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg macha allahu rabbi li man li li ma ci jot a dégg man dafa ma doy sëg nekkul c'est pas la fois ñu door fi ñëw bii mooy suñu troisième fois ñu fi ñëw xam-xamam bu bu leer boo xamante ni lu wér la muy ñaanal doomi aadama yi nit ñi di ci teg seen bët moo ñu booleek moom jaxasoo ak moom incha allahu rabbi ni mu leen ko waxee noonu la saltige bi mag bi la fii ci kër Mbay Fall lépp lu mu la ñaanal yàlla yàlla dina ko nangu nee naa leen bu ñëpp yemoon ku ne gédd sa cër tàllal say baaraam rek bu fekkee ñëpp ñoo tolloo nga xam ne sëriñ si ñëpp a tolloo sëriñ si nga xamante ne ñu ngi ci internet bi di yàq ah ngeen la dimbale leen ñi ngeen bàyyi ko ngir yàlla dimbale doomu aadama yi doomu aadama yi sonn nañ lool lool lool lool képp ku ci xamul ngeen la noppil képp ku ci bëgg a xamit demal nga sàkku ci xam-xam pour bu ëllëgee bu nit ñëwee ci yow nga mën koo jëriñ bu ëllëgee yow nga mën a jëriñu daw leen dem sàkku ji xam-xam moo gën yow miy ñaan yàlla ñu ngi leen di dox dig dajee ba beneen yoon insha allahu rabbi ci beneen boroomu xam-xam waaye jëmm ji moom duñ tàggoo moom mukk daw leen ñëw seet si ko fii ci Kër Mbaye Fall numéro téléphone yi mu ngi noonu ci daw ci écran bi saa boo leen ko soxlaa disponible na pour yéen jërë ngeen jëf